بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ci ndigalul sëriñ Muntaha mbàkke xalif Seniral des mourides sëriñ moodu khaban mbàkke ibnu seex mohamadul fadal mbàkke jëwriñ ji saytu njàngum alquran mi ci touba ak li ko wër sëriñ basiru mbàkke abdou xaadir yore kàddug yoon wi ñu ànd di leen yëgal jonganteb alquran ba ñu at mu jot di grand prix international cheikh ahmadou bamba mbàkke xaadimu rasul war tombe weeru safar di màggalug touba atum 1445 ci atum 2023 ñu war a waajal deuxième édition bi fas yéene tàmbali nag mbind mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2023 ñu ngi leen di xamal ne mbind ma nañu ko ba altine fukki fan ak juroom ci mai 2023 77 613 38 67 77 550 05 33 77 246 86 31 képp ku def vidéo jaarale ko ci numéro bi 76 492 80 85 ñu ngi koy yëgal ñëpp nag di soññ ñëpp tey sentu ñëpp ngir màggal alxuraanul karim sagal lislaam sigil Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké rasoul